tamit mu moo xam ne tey natt bi daloon na suñu rakk Ama Baldé nal daloon na bébé Saloum te tey du moom kese ak Albarka Kayra moom it ñu koy ñaanal fee mu nekk yàlla génnee ko fa Saloum Saloum tamit yàlla génnee na ko foofu tamit lii dafa yàgg ci xam nga nattu daal. waaw li ma si ñaawlu daal mooy yenn mbër yi ma gisul fii. waaw loolu daal laa dul ñaaw parce lii yëpp ñëpp la. waaw allah Pape Sarr bi mu yëgee lii est ce que commune nekk ci ak mbër yu Pikine yi ñoom ñëpp. non bu baax a baax a baax surtout fa même. ok fa même comme tey munoo jékki-jékki tey la de guerre xamoo ndax li mu li nga. li nga mbëru Pikine yi mbëru Pikine yi non mbëru Pikine yi keroog biñ koy defeere Eumeu Sène a ngi fa maa ngi moom ñoo fa ànd Eumeu seen ñëw na fa te ku wax Eumeu seen ne Pikine gis nañu jéego yu ci booy ñaa di def xam nga xëy na ku demoon dëkk micro waa kër kii di ñu xam ne li si booy ñaa def ñëwuma pour défendre benn mbaru Pikine mais dama leen ñëpp waroon nañu teew fii ku am combat ku amul combat ni a neex am hmm. ama neex ci contrat la nekk war a bëreeg ñaa bu ndaw di doomu géejawaay nekk écurie Waalo teewul tey dafa dugg ci fii hmm. lii bésu ñëpp la hmm. du bësu ñëpp la man daal li ma si mën a def mooy dinaa ànd ak famille xool autorité yi nekk pikin képp ku si mën a def sa dërëm ak sa ñaar dërëm nga def ko si man loolu moom loolu moom mu fi gën a indi mooy waxtaan ak famille la de guerre ak président écurie bi képp ku ma xam ne tey kii da dimbali Pikine dinaa bëgg ñëw mu dimbali la de guerre boobaak léegi ba mu nekkee ci problème beeg léegi la seeti nga ko wala demagoo fi non seeti wu ma ko seeti seeti ji wu ko mais maa ngi gis ku mel ni dof ak tons ndijaayam ñoom ñëpp ñu ngi ciy wax ñoom nee nañ ma ñu ngi mu ngi si jàmm comprendre nga bu soobee yàlla bëgg naa ko seet si te maa ngi ñaan yàlla balaa ma koy seet sax yàlla na ko yàlla génnee mu tabaski fii ak njabootam mais maa ngi koy wax képp ku nekk ci làmm xam nga tey bëggoon nañ fi gis teewaayu CNG tamit ñoomit it balaa leen ci dara mais tey seen teewaay dafa rafetoon tey ñu gis leen maa ngi koy wax képp koo xamante ne yaa ngi bokk ci làmb nga dugal ci sa dërëm mais dañuy def mention spéciale suñu papa Bécaye mbay xëy na tey Père Bécaye li mu joxe nii rek la ñu gis Père Bécaye yàgg naa def lu mel nii xam nga télé musul tàkk caméra musul tàkk tey xëy na la feeñ rek xëy na munul lu munul ñàkk la mais ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm mook fameem Modou mbay ñoom ñëpp Père Bécaye li mu def nii billaahi dañ koy ñaanal waaw yàlla na ko fi yàlla bàyyi taxagu yéen presse bi tamit def ngeen ci liggéey bu am solo ñu ngi leen si ñaanal bu baax a baax a baax a baax mm. may wax waa Sénégal na ñëpp jóg mm. képp ku la de Guiers wala Eumeu Sène wala Pikine ak fépp foo munte nekk lépp loo yor man lay ñaan nga jàppale suñu frère mu génn fee mu nekk. amaan na beneen xale muy ki nga xam ne moom mooy Albarka Kayre. moom it yàgg na ci nattu bi. waaw lan ngay wax ñi nga xam ne comme nii lañ si Lac de Guiers. moom it ko